jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu point com am nañu mbégte dikkaat ak yéen ci l'invité de la rédaction nekk jotaay goo xam ne rek dañ ciy dalal ay kilifa yoo xam ne ràññee nañ leen lool rawatina nag file ci dëkk bu sell bi di Touba tey nag ñu am mbégte lool jàkkaarloog Serigne Saliou Mbacké El Hadji Bara nekk koo xam ne ràññee nañ ko lool ci dëkk bu sell bi di Touba waaye tamit euh, jiite euh, këruk euh, dem ak dikk gi ñuy wax Bawal transport donc tey ñu fas yéene waxtaane nag lu jëm ci jëlaat gi nga xam ne jëlaat nañ ko wàllu ko dem bekk dikk bi rawatina euh, lu jëm ci transport interurbain bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu euh, ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay topp ci 24actu point com. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi lay fay nuyu bu baax di yëkkati suñu nuyoo bu sell euh, di ko teg ci ñi nga xam te ni ñoom ñoo ñuy seetaan ak déglu ci sunu site bi nga xam ne mooy 24actu. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ bi ci nuyoo bu am solo boobu euh, wax naa ko sànq léegi yaa jiite euh, Bawal transport gis nañ ni ay dogal yoo xam ne jot nañ ko jël ci wàllu ko dem beek dikk bi ubbiwaat yoon yi am ak oyofal goo xam ne am na ko ci nan nga apprécier dogal boobu. waaw dañ ci sant yàlla bu baax te xam ne ñëw na ci waxtoom waxuma la ñun ñi nga xam te ni ñoo ciy liggéey wala ñi ci ànd di ci liggéey waaye sénégalais yi nga xam ni ñoom ñoo ñun ak ñoom ñoo ko seq ñoom ñooy jël euh, sunu demukaay yeeg ñëwukaay yi demoon nañ ba yëf yi euh, metti ci ñoom dëgg-dëgg état bi nag wane na ne ne sénégalais yi laa fi nekkal wane na ne ne euh, lépp loo xam ne ni maa ngi koy tracer rek pour lu leen di jariñ la donc loolu tax na bi mu dégloo sénégalais yi ci façon diplomatique mu mu xool xam ne daal wax dëgg yàlla lii dëgg la virus bi moom moo ëpp doole lu nekk loolu moo waraloon tey jii Euh, ngir intérêt Sénégal yi mu mu dakkandi lépp loo xam ma dakkaloon na ko bi mu demee ba xam na tamit comme ni mu ko waxee dañuy dund ak virus bi mais ñu bàyyi xel na toujours mi ngi fi rek loolu moo waral tey mu jël ay mesures euh, ngir euh, bëgg-bëgg askan wi ñu fexe ba nit ñi dem ak dikk mais ñu ànd nag ak ay mesures yoo xam ne danañ ci ñëw ngir mu gën koo leeral. ngay wax ñenn ñi nga xam ne dañu ne euh, dogal bi dafa yéex ñeneen ñi ne euh, pression bi nga xam ne askan wi tegoon nañ ko ko muy chauffeur yeeg ñi nga xam ne ñoo doon wàcc ci mbedd mi euh, loolu bokk na ci li tax ñu jël yooyu dogal. waaw loolu moom xalaatu sénégal yi ñenn ñi la ndax gis nga état pression moom yaakaar naa ne mun na sonal ku nekk ba mu des état mu bu ñu ko tuddee nag pression parce que tamit jaadu na état di déglu ay ay population maanaam lan la ñu bëgg donc ñi doon génn nag ñi doon manifester ak ñëpp. xëy na mutuñ sax un tiers ci réew mi mais teewul ci population bi la ñu bokk kenn du leen euh, mën a génne mais buñ ko buñ ko buñ ko jëlee noonu. deuxièmement mooy man lii wax naa ko le mardi rek bi xale yu njëkk yëngal nee naa leen wax ñi ngi waxtaan ak gouvernement bi am nañ ay solution yu ñuy tëral yoo xam ne dina jariñ ñëpp. donc man amoon naa information dès lundi passé que ni mercredi dana ñu dindi euh, interurbain bi mais dana am nag ay mesures d'accompagnement yoo xam te ni nga xam ne dogal bi dinañ ci euh, dana ay woyofal yi dina am avant lii di waaw ñi dégg may wax euh, tama waxoon ci ak ñoom xam nañ ko xam nañu waxoon naa leen ko leen di mardi yëpp maa leen koy wax même mercredi si ngoon sax am na ñoo xam te ni gën naa leen ko kii ba koy maanaam poste sax ci sama page Twitter wax leen na leen kat état bi. Euh, xam na ne ne yëf metti na te yëf yaa ngi fi donc jaadu na kon mu xool nan la mën a fexe ba nit ñi ñuy dem ak dikk dox seen ay soxla te teewul danañ mën a moytu tawat ji. nga xam ne yéen a ngi nekk ci euh, secteur boobu naka ngeen fa yéene organiser woo euh, ba nga xam ne lii di mbas mi wàllante bi ñu bëri ñu teewoon ko jàpp ne foofee la lañ ko gën a yaakaar mu law naka ngeen di organiser woo ak dogal yi nga xam ne nguur gi jot na ko jël. waaw ñun li ñu war mooy dañu war a gën a jàppale suñu bopp d'abord mais bu ñu ko tuddee jàppale état parce que feebar bi euh, sénégalais yi nga xam te ne ñoom lañ gën a yaakaar ne ñoom ñoo ko ñoo koy yaatal mooy ñun li ñuy wax sénégalais lambda sa à mooy ñun ñi nga ni nekkuñu ci gouvernement bi amuñu yenn moyens kon ñun ñoo war a xool suñu bopp ñoo war a gën a gën a bëgg suñu bopp ko ku mën a doon fexe ba li état bi bëgg mooy feebar bi bañ a law te ñu yaakaar na ñun ci ñu koy lawal lañu bokk ñu fexe ba loolu bañ am mooy lan lépp lu ñu sant ci côté sanitaire nañu ko def bu dee masque yi dañ ko def nañ ko def suñu farata bu dee distance bi bu dee raxasu bi et cetera et cetera donc loolu ñun la gën a concerné que ñoom parce que ñoom yaakaar naa yàlla jox na leen mooy àdduna yoo xam ne que loolu mun na leen bañ a arrivé rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy côté transport. parce que nii ñu nii ñu nii ñu waxee ba Sénégal ñu bari jàppale leen nañu fexe ba buñ ñu bu ñu sàgganee noonu ba ñu bari jéppuñu te loolu mu ngi suñu kanam suñu deful euh, li ñu état bi sant ci wàllu réglement yi. sénégal yi nga xam ne ñoo wëlbatikoon di ñu xeexal ñoo wëlbatiku nag di ñu xeex encore parce que kon dañu war a ne ñun propagation bi ci ñun la commencé donc loolu nañu ci bàyyi suñu suñu xel jël suñu ay matukaay kenn ku ci nekk moyen bi nga am ci côté mobilisation ci côté sensibilisation ci côté moyen financier boo xam ne di nga ko mën a yëkk di jox ko say ndaw wala sa lieu de transport bi nga nekk ngir ñu mën a respecter mesures yi ba ëllëg incha allahu rabi parce que bu ñu fàttalikoo bi ñuy tëj transport bi on est 78 démb bi ñu koy ubbi ñu ngi ci 4155 donc nañu battre record ñun 78 yu mu nekk loolu défi la ci yéen. merci c' est une défi quand même euh, maanaam 78 yu ñu nekkoon 23 mars waxuma sax nañ dellu 78 mais nañ ko gën a yées nañu wane kat ñun transport bi dañ ñëw tëjoon affaire bi gën a yokk nañ ñu ubbiwaat affaire bi gën a wàññeeku. parce que ñun tamit ñun ñooy déplacer population bi waaye ñun am nañ ci responsabilité boo xam ne ni ñun la engagé te loolu dañ ko war a def jàppale suñu bopp également tamit pour jàppale état yombal ko ci liggéeyam. mais est jàpp nga ne dina euh, yomb bu nu gisee ne yenn ci oto yi dañ koy euh, def ba mu fees te xëy na duñu respecté euh, lu ci bëri loolu lan nga ci wax. waaw loolu moom lu jafe lay doon parce que transport ak commerce dafa am ñett ñetti yoo xam ne Sénégal ñoo gën a ñàkk organisation. muy affaire sëriñ ku mu neex sol sa mbubb mu rëy kaalaw di wax ndànk nekkub sëriñ wala nga nekk commerçant mun nga jënd sa benn objet léegi di ko jaayaat da ngay nekk commerçant mun nga nekk tamit transporteur comme ni ñu koy defee donc malgré que am na ay yoon am na ay licence am na ay agrément mais ñëpp xam nañ ne réew mi euh, population bi dañu ëpp doole transport bi ñun chaque jour nga dégg ñu ne oto dafa manqué bërëb sànga wala sàngam ñun ñi nga xam ñoo ci investir mënuñ leen a satisfaire loolu moo waral tey ji infiltration yi bari. yi dafa jëf mënu ci ñàkk dafa bari. léegi nag loolu nag euh, c'est le moment ñu organiser ko parce que suñ ko organiser wul ñun ñi nga xam te ni xam nañ suñu ay lieu de départ ak suñu lieu bi mun nañ jël suñu ay matukaay mais am na yeneen façon transport yoo xam ne ni ñun ñooñu munuñ leen a identifier. ñooñu munuñoo xam seen lieu de départ ak seen lieu d'arrivée donc loolu mun na indi conséquence boo xam ne ëllëg dañ koy jiiñ ci ci ci interurbain or que nekkul ñun ah, ñi nga xam te ni dañu nekk ah, ci formel ah, indiwuñ loolu mais ñeneen ñi nga xam te dañu nekk ci informel bi ñoo ñoo ko indi. kon sëñ bu ñu la déggee dafa mel ni da ngeen di tiit yéen ñi nga xam ne da ngeen organisé wu ñeneen ñi nga xam ne xëy na dañuy jaar ci geneen wàll gi yokk yëf yi ñu jiñ leen ko. waaw parce que ñooñu ñun ni ñuy yóbboo la ñuy yóbboo ni ñuy indee la ñuy indee nit mun na jógee Fongoli mi léegi balaa 18 heures mu ñëw Touba par exemple wala beneen lieu ci Sénégal nga jël ko yóbbu Dakar wala feneen donc ñooñu tamit bu ñu leen bañ a considérer ay transporteurs parce que dañuy transport benn la mi ngi mel ne tey jii euh, avion bu mag Boeing ak charter ñoo yam ñëpp dañuy yóbbu ay nit ak indi rek te te benn nit bi nit kiy jël wala quatre personne yi muy jël euh, surtout du bois mais mun na contaminé presque ñaata nit ñu kenn xamul donc loolu tamit nañ ci bàyyi xel ñun xam nañ fi ñuy déparé xam nañ fi ñuy arrivé identifié wu nañ état moo ñu agréé jox ñu licence ñu war a nekk ay transporteur kon ñun responsabilité bi ñu ci war ñun xam nañ ko mais est ñi nga te jëluñ seen responsabilité ñooñu ñu mat a bàyyi xel lañ te ñooñu euh, mar di taali mun nañu yokk feebar bi. Mhm. voilà euh, ñu gis ne aussi euh, ci dogal yi ñu ci jël manifeste c'est-à-dire wane ne fii lañ jëlee nit ki par exemple jël ay lu bari ci moom est-ce que loolu jàpp nga ni dogal bu baax la ci tamit. non non non je suis pas d'accord parce que manifeste moom yaakaar naa comme ni ko fi son excellence président Abdoulaye Wade waxee woon c'est bon bonne kii boo xam ne mënoon nañ ko continuer bu mënul ñàkk mooy takk say morceau. dox euh, pacifiquement wane ne man dafa moo metti mais façon bii ñu ko xale yu jëlee nii moom euh, baaxul te te boo xoolee li ñuy yàq lépp euh, gis naa fi ñoo xam ne bi ñu yàqee poste yi seen ay bàyyi ñoo xëy 5 heures pour dem jël seen ay bourse familiale donc ñooñu xañ nañ leen ko te pourtant seen ay parents ñoom ñoom la ñuy jox du parent président Macky Sall du parent ministre Abdoulaye Diouf Sarr du wala seen ay bàyyi ñoom ñu dëkk ci koñ bi ak ak gox goxaat bi ñoom ñooy dem ci poste de finance ba di jëli seen ay xaalis donc kon loolu déjà conséquence bi yaa ngi koy commencé subir te demagul fenn donc kon manifestation moom euh, ci côté euh, violence bi moom nekkul loo xam te ni ñun lu ñuy conseillé kenn la nekkul loo xam dañ koy rafetlu lu ñuy ñaawlu la. Euh, yan mooy mesures yi nga xam ni fi mu toll nii jël ngeen ko ci bawal transport pour que ñu mën ko respecter masque yi. waa loolu moom dañu ci fekk de ñu ciy liggéey bi ma xëyee dem naa rencontré ñi nga xam ñoo nekk au niveau de Touba ñeneen ñi ci des maa ngi war a jokkoo ak ñoom ci wàllu xarala yi. ngir ñu mën a respecter mesures yi déjà defar nañ ay fiches yoo xam ne ni que bépp euh, passager boo xam ne yaa ngi utiliser euh, groupe Baol transport ci côté transport interurbain wala urbain sax quand danañ la identifier danañ jël sa tur jël sa numéro téléphone jël sa sant jël sa adresse parce que loolu la ñu état sant fiche boobu tamit euh, chauffeur bi buy dem par exemple bu jógee Touba di dem Dakar day yóbbaale fiche bi. en cas contrôle. su eggee ba dakaar suñu suñu beneen représentant bi nekk foofu moom lay jox fiisu Touba bi. suy départ dakaar ñu defaat loolu bu ñëwaatee ba Touba ñu joxaat ko représentant bi nekk Touba mu téye fiisu Dakar bi nga xam kon ñaari fiis yi dañuy dañuy essencenté fiis bi ñu jëlee Touba ci suba gi day fanaan dakaar fiis fiis bi ñu jëlee dakaar ci suba gi day yend day fanaan ci Touba. yëgal beeg euh, wàcce bi nag ki diggante bi loolu nan ngeen koy xàmmee. parce que euh, ki nga xam moo nekk ci oto bi euh, jàng na tubaab dina ko mën a bind. danañ ko jox yeneen fiches yoo xam ne tamit loolu lay jëriñ. dañuy yéeg ak wàcc. mais au niveau de départ moom ci ci ci ci lieu de départ yi ñoom. kenn mënul dugg te duñ la identifier. beneen bi mooy port de masque obligatoire la. dañ ko dañu bind def ay flyers bind ci ne port de masque durant le voyage. Mm. ñun tant yaa ngi ci oto bi. c'est une obligation. beneen bi mooy defar nañ plus de 400 masques yoo xam ne commandé naa ko pour ñu jàppale ko clients yi nga xam ne dañuy xas déplacé wu parce que mën nañ jóge fu sori. mun nañ merci. mun nañ ñëw bëgg ñu utiliser à 5 heures du matin donc duñ mën a jënd masque. wala ñu ñu def leen en cours de route duñ mën a jënd masque kon c'est bien tamit ñun ñu jàpp ci. génne sunu xaalis pour mën a jënd ay masques yoo xam ne clients yi nga xamante ni dañuy déplacé wu ñëw ba ci ñun te amuñu lu ñu defarloo ay masques wala ñu fàtte ko wala circonstance bi ñu nekk mënuñ ko am ñu jox leen ay masques parce que loolu tamit ci ci jàppale sa réew la bokk. mais guddi gi de du ngeen voyager bu fekkee ne couvre-feu bi 23h lay am. ñun moom naka jekk sunu gën ngaa guddi moom 20 la bu ñu yàlla dimbalee moom 20h daan na fekk sunu oto yëpp arrivé moo xam yi dem Dakar la. wala yu jóge euh, Touba di dem Dakar donc loolu moom yàlla dimbaloon nañu euh, ak ak organisation bi tamit bu bu fekkee ni ñu ko xalaatee noonu la amee dañu gën a teel a ñun suñu arrivé parce que kuy départ Dakar 13 par exemple ak euh, moyens yi nga xam te am na léegi yaakaar naa balaa 19h nga ñëw Touba. Touba tamit yaa ngi fi départ 5h du matin wala 6h maximum donc boo balaa ngaa egg Dakar maximum 13h di nga egg Dakar. donc kon ñun euh, chance boobu moom yàlla dimbale nañu ci ba daawuñ dox guddi. parce que dañ ko daan éviter toujours sunu sunu sunu ay liggéeykat. def ba respecter euh, distance yi nga xam ne wax nañ nit ki euh, war na ko am ak nit ki parce que bu dee banc yi ci bus yi nañ ni foofee ñaar ñi mën nañoo tax loolu. waaw on préfère nag comme li ñu wax rek nit ki takk masque durant le voyage yaakaar naa bu amee masque wax nañ ne docteur yi nee na 5 pour cent la pour ñu mën a wàllante parce que boo lee du dem ci nit. boo boo saqatee du dem ci nit lu la loo mën a def du dem ci nit donc loolu la ba pare tamit danañ leen jox ay sel jox leen euh, lieu de départ bu nekk danañ fa teg euh, loo xam ne que non bu ñu yoon yoon yoon def nañu mun nañu yem nombre parce que xam nga fii Sénégal comme ni ñu ko xamee transport bi nit ñu ñi ñu soo bëggee jël oto di ko xaaj bëgg a daw 200 kilomètres yaakaar naa li nga daan am ci recette ku néew sax dootoo ko am donc kon xaaj bi moom c'est pas une mais mun nañ euh, respecter masque yi respecté yi nga xam voilà yeneen yi nga xam te moom comme raxasu bi ak yeneen euh, objet yi nga xam te ni nit ki da koy laal muy buntu oto bi rek yenn bras yi ñu koy nettoyé à tout moment dana mën a waral ba contamination bi du mën a du mën a bëri. nee nañu raxasum oto mi euh, niñ ko diglee moom ñu bëri duñ ko mën a respecté. waa loolu li may wax léegi ci responsabilité nit ki la parce que wax naa leen ne leen bu ñu xool ne kat ñu ñu koy sant dañuy jaay doole wala dañuy def ndàngam déedéet on est là pour nous. nañu génn suñu alal pour mën a fexe ba lii jóge fi kenn ku ci nekk minimum dund nga vingt ans yoo xam ne xamoo lii noonu nga war a ñaanee yàlla nag continuer ci kanam ba dootoo gisaat lu mel nii te loolu nag ñun rek la keneen mënu ko fi jëlee jox nañ exemple ci euh, Chine gi nga xam ne feebar bi fa la njëkk a feeñ ñoom ñëpp dañuy confiné automatiquement deux mois affaire bi jeex fàtte nañ ne léegi affaire bi amoon na fi comme ni ñu ko mën a waxee mais teewul loolu ñun ñoo war a jël suñu ay engagement ñun sénégalais fexe ba loolu bañ am oto bi pour nga raxas ko c'est très simple. say apprenti mun nañ ko def mooy désinfecté la ñuy wax rek mais extérieur oto bi moom euh, baax na ci mais à 30 pour cent la mais 70 pour cent yëpp mooy biir gi ak objet yi nga xam te ni nit ñi ngi koy laal muy bunt bi wala weñ yi wala nangam ak xaalis bi nga xam te ni yow yaa yow en tant que apprenti wala chauffeur bi wala euh, caissier bi yaa ngi koy jokkalante ak euh, clients yi.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 voilà ñu ngi koy euh, sant baax di ko gërëm Serigne Saliou El Hadji Bara euh, ci dalal bi nga xam ne dalal nañu fii ngir ñu mën a waxtaan ak moom nekk koo xam ne rek maîtriser na baax secteur bi nga xam ne euh, moom moo di wàllug transport ñu ngi koy sant baax di ko gërëm sant baax moo di Diouf mu nekkoon ci caméra bi sant Cheikh Gueye mi nekk ci montage bi ñu ngi leen di gërëm di leen jox daje incha allah beneen jotaay l'invité de la rédaction jërë ngeen jëf.